ci bien avant campagne bi dañu gis ay provocation yow def Tambacounda euh, def ko Kolda aussi la même chose. papa bi yaa mën provoqué. <laughs> non non non. non mais ça mais loolu la ñu gis. non c'est tey moom da nga aay tey moom cee cee tey moom cee au top. <laughs> Abdourahmane dama gis nga def ay provocation à Tamba. Uh-huh. gis ko et puis ut ci buzz. cest à est-ce que loolu itam yaakaar nga ni sa cër la noonu nga def par exemple dugg Tamba ak say flyers ak sa sa sa sa sa ñaari nit ñetti nit cest diir dire bu mu indi coow est-ce que jàpp nga ni loolu waroon nga ko doxale noonu aussi ci jamono boo xam ni gis nga dogal bi nga xam ni gouverneur jël na ko uh-huh. euh, mu waroon nekk loo xam ni vraiment lu mënoon ñàkk la Pape fukki at a ngi nii may politique Sénégal xamul luñ ma ci bës man damay jéem a proposer ay idée ak doxalin boo xam ni même bu ma amul ndam ci benn at aw ma ndam ci ñaari at aw ma ndam ci ñetti at xam naa ne bu soobee yàlla dinaa mës a am njam ndam parce que ci digg bi dëgg bi laay dox. politique fast food boobu ñëw def benn action déclare ñu wax la nga am ay vues am ay like ça ne m'intéresse pas li ma def Tambacounda def ko Kolda yoon moo ma ko may. pré-campagne lañ nekk les termes les mots ont une définition non mais pré campagne. pré campagne bokkul ak campagne. waaw mais pré campagne boobu tax na ba benn Bokk Yaakaar waroon amal événement mais sursoir ko arrêté ko. déedéet Benno Bokk Benno Bokk moom li ñu waroon def yëpp def nañ ko d'ailleurs Tambacounda boobu ma nekkoon. activité boobu ma doon def la veille dafa am benn ministre bu fa nekk boo xam ne activité bu mag la def bëgguma tudd turam mais bi ñu ñëwee nee nañ ñu sax moom ministre bi moo ñu romb ñu distribuer suñuy flyers moo ñu signalé loolu lañ ñu wax. dama ciy maandu nag parce que gisuma ko donc bennoo li mu waroon def yëpp moo koy def mais li am solo mooy keneen def la ñàkk def mooy teguñu ko ci yoon man wax naa ak préfet Tamba wax naa ak commissaire Tamba. wax naa ak commissaire téléphone moom nga doon waxal wala ci image yi. bi ma nekkee image bi. boobu commissaire Tamba laa doon waxal commissaire bi ci boppam parce que dañ ma interpellé un commandant moom ma njëkk a ne ma nañ ma na nga arrêté ma ne leen déjà kan moo wax naa arrêté sur quelle base laa arrêté ñëw rek ne ma damay arrêté man damay def mu ne ma may ma cinq minutes cinq boobu pour nekk ku respecté loi dama ko ko may ñu taxaw cinq minutes yooyu cinq minutes yi jeex ci la ma woowaat téléphone bii nii sama téléphone li téléphone bu la donc commandant bi moom ma passe téléphone bi ne ma c'est le commissaire ma jël téléphone bon jarul may duggaat ci détail mooy li ma wax nii commissaire bi laa doon waxal mu ne ma na nga arrêté ma ne ko pourquoi ma war a arrêté mu ne ma en tout cas préfet bi moo ma jox instruction pour nga arrêté ma ne ko woowal préfet bi nga ne ko na ma wax pourquoi ma war a arrêté man dama doon coalition boo xam ne c'est reconnu par le ministre de l'intérieur ci huit coalition yi dem ci jongante bi lañ bokk man je suis le coordonnateur national de la coalition pré-campagne laay nekk defuma rassemblement defuma trouble à l'ordre public tëgguma musique damay joxe samay flyers wax nañ ma fi ko teg ñu bàyyi wax naa nañ du boobu ñu ma ne nag d'accord ma ak yow ñu bàyyi ma continuer ci biir Tamba nekk ci marché bi distribuer suñuy flyers. ñu dox ba benn moment waa police ñëw gaarewaat suñuy tànk policier bi commissaire bi ci boppam ñëw taxaw buntu police d'ailleurs ñëw ñu commencé wax échanger. Ah, mais loolu du provocation. arrêté nga ni du ma arrêté continuer. non parce que bu may arrêté man. waaw dëkk Sénégal ñu ne ma loi Sénégal moo tax nga arrêté. dañ ma war a wax ban loi moo tax ma arrêté parce que foofu tam nuance bi c'est important parce que ñi ñu bëgg a critiquer foofu la ñuy jaar xam nga. te loolu mooy dëgg aussi. xam nga xam nga non cest dara mu ne la le wax na. Hmm. mu nekk une voix autorisée. commissaire wax la ko nga dégg. waaw commandant jox la téléphone. Hmm. mais nañ waxante dëgg. mais man ay loo def lu dul loolu man ay waxu préfet ay waxu préfet ma de. préfet ëpp ma fulla ëpp ma fayda gënu ma dëkk ci dëkk bi gënuma xam droit gënuma xam yoon gënu ma nekk kilifa ay waxu préfet ay waxu commissaire tënku ma xam nga lan moo ma tënk li leen luwaa jox ñoom ma nangul leen ko man waxuma commissaire gis nga policier bi nekk ci circulation bi di contrôler bu ma contrôler dama koy jox gëddëm ba mu mat sëkk institution de la république dama leen di respecter waaye il faut que ñu xam ne on n'est pas sous le registre d'une interdiction général interdiction générale par exemple bu doon préfet Tamba dafa bind ne période bi kenn amul droit distribuer flyers xam nga loi bi am na man ma ñëw teggi loi donc damay nekk sous le coup de la loi mhm. mais moom deful benn interdiction général donc man dama def acte mu ñëw interdire acte bi ma def donc moom moo war a ñëw indi acte buy interdire li ma def mais bi ma demee ci bureau commissaire bi loolu la ñu waxtaan xam nga commissaire yëpp ay juriste lañ te juriste yi muus la ñu mën a jàng lañ am nañ fa waxtaan bu neex mu ne ma Abdourahmane deux choses article 61 Mhm. code électoral. Mhm. dafa wax ne pré campagne bi donc lii ngay def ni amoo droit def ko ma ne ko commissaire da ngeen juum. Mhm. parce que pré campagne bi article 61 li mu interdire. c' est pas la propagande en tant que telle la propagande est autorisée mais propagande bi nga xam ne TFM. privé. wala RTS public dafay ñëw di ko wane. loi bi dafa leer mais xam nga euh, Abdourahmane débat boobu bàyyi nga ko dakaar te amul solution. bàyyi nga débat boobu parce que bi ñuy interdire euh, marche bi nga xam ni am nañu ko waroon def fii mhm. L61 boobu lañu leen lañ leen lañ leen opposé mais nan lañ leen ko interdire non mais non loolu lañ leen opposé nan lañ leen ko nan lañ leen ko jox kayit waaw ah, mais xam nga yow non man joxuñu ma kayit non mënuñu la jox kayit waaw ah, mais mais naka lañ tant que joxuñu ma moo tax ma ne la nan lañ lay joxee kayit moo tax ma ne la on est on n'est pas sous le coup d'une interdiction générale cest dire que waa wi ñoom ñoo waaye yow ñoo am dëgg ci cas boobu mais indi nañ leen këyit moo tax ma ne la man ba may wax ak commissaire ak wax ak préfet ay waxu commissaire ak préfet tënku ma nañ ma indil këyit bu ñu ma indi d'ailleurs pour terminer indi luñ ma këyit mais ci sama esprit pacifique républicain respecté institution dama arrêté dama arrêté Tamba bu may génn commissaire dama arrêté ma dem Kolda le lendemain wax ak commissaire bi. mu waxaat ma ña parce que ñoom ci article 61 bi. c'est-à-dire jéemuloo résister daal. jéemuloo résister li gën a garaaw. jéemuloo résister daal laa bëgg a. xam nga. résistance dëkk bi dafa nekkoon. te mu ngi si sax ba léegi bon mu ngi xaw a tane. Mhm. ci circonstances yoo xam ne ñëpp xam nañ atmosphère bi dafa luur. ok dëkk bi dafa tàng. te man nag wax dëgg yàlla bëgguma bokk ci ñi nga xam ne dañuy yokk këriñ ci ci ci ci daay bi. Mhm. c'est-à-dire am na des fois mën nga toll situation boo xam ne da ngay renoncer ci ay droits. pour am jàmm. policiers yooyu ni ma nekkee seen biir biir waxtaan ak ñoom et ça aussi je dois le dire c' pas de la faiblesse. amul kenn ku ma ci manqué respect. ils m'ont traité de la façon la plus correcte possible. ma respecté leen ci lool. donc ñooñu aussi man awma benn intérêt pour toroxal leen. d'accord donc bi ñu ma teree. ñoom ñaar ñëpp wax naa la c'est des juristes parce que à part code électoral ñoom ñaar ñëpp dañ ma génneel article code pénal a garaaw sax rek ñu mënatu ma ma kaso. ma ne leen da ngeen juum mais ba ñu waxtaanee ba juboo ma ne leen d'accorduma ak li ngeen wax mais may naa leen pour respecter seen autorité nee naa arrêté. ak a dem kaso aussi. non man ragaluma kaso non non bañ a dem kaso non non kaso. d'accord non ragaluma kaso article code bu yàlla bés bu ne dama war a dugg kaso. Ah, non non non dinaa ah, mais dama lay wax li tax ma def ko. ok mooy respecter les autorités de mon pays. d'accord a dem kaso. parce que non man ragaluma kaso Pape. kenn wutul dem kaso mais wax dëgg yàlla ragaluma kaso mais dama bëgg a wane ne mhm. Mhm. man je respecte les forces de défense et de sécurité ñoo xam ne ñun ñun ñooy waa aar Sénégal uh-huh. bëgg aar Sénégal mais à la base ñoom aussi ñoo ñuy aar d'ailleurs nga may ma une seconde mhm. parce que am na benn soldat sénégalais justement bu daanu ci Mali Bamako Mali ma ciy profité pour jaale ko famille am jaale ko Sénégal yëpp ñun suñu force de défense et de sécurité moo ñuy wan ne ñu ngi ci démocratie. Mhm. des fois mu am ay ay mhm. mais bavure bi mooy policier bi def li mu warul def. liñ ko santewul gendarme bi def li mu warul def d'ailleurs da ngay gis ay gendarme mu def ay bavure ñu sanctionné leen individuellement. Mhm. mais force de défense et de sécurité ñu am de façon général man dama naw seen liggéey te bëgguma yàq seen liggéey. d'accord merci beaucoup léegi ñu ñëw ci contrat législature bi. important ñu taxaw ci. nga réaliser ko maanaam il faut nga teel a jóg fi ma li ma wax teel jog mooy il faut nga am majorité ci assemblée nationale mhm. pour mën a doxal euh, yaakaar nga ni luy yomb lay doon fi dara yomb fii ok déjà ci contrat bi mhm. ñun ñu ngi ko proposé sénégal yi depuis le 9 juin mhm. donc mois tout à fait avant démarrage campagne bi tout moo tax sànq bi ñuy wax affaire liste yi ma ne leen dañu nekk ci dëkk boo xam ne jagagul dañuy daba daaxee dëkk bu nekk di daba daaxee da ngay encourager ñi nga xam ne ñu ngi def ay effort mhm. pour respecter règles yi mhm. ñun dem nañ caution zéro faute mhm. dem nañ parrainage zéro faute dem nañ investiture zéro faute tey jii dem nañ contrat de législature du ma ne zéro faute waaye présenté nañ dara sénégalais yi te timing bi def ci am solo parce que mënoon nañ fi nekk di def affaire sénégalais di yeexantel ba mu des deux jours wala même ñu commencé ñu door a génne ne programme bi un mois avant lañ ko présenté. un mois avant xam nga loolu li ñu ci jublu woon. Mhm. pour wan sénégalais yi ne ñun bu ñu demee assemblée lii lañ bëgg a doxalee. Mhm. waaye nag suñu xel doyuñu moo tax ñu jox leen délai un mois ku ci am looy xalaat. contacté ñu nga wax ñu lu ci xalaat te noonu la demee. tout à fait États-Unis France Maroc fu ne. Sénégal département bu ne man sama téléphone je passe mon temps di envoyé le la version PDF ay nit parce que sénégalais yi mu intéressé dañu bëri loolu lañ ci doon wut am na ci yoo xam ne yokkal nañ ñu ko ci am na yoo xam ne wàññil nañ ñu ko ci parce que bëggoo nekk rek technocrate boo xam ne da ngay tëju ci bureau. ne maa xam lépp bu ma ñëwee lii laay appliqué non dañu jël affaire bi jox ko askan bi askan bi delloo ñu ko ñu jël li ci baax pour bu ñu demee ñu wane ko. lan moo ci gën a nekk lu social loo xam ni par exemple mën nañ ko xaar euh, ci mu nekk loo xam ni biir assemblée nationale. dina mm-hmm. dina mën a dina mën a am njëriñ ci socialu askan wi maanaam ci seen dundin ci lu ngeen fa war a mën a teg ci ay commission yu koy doxal wala ci ay mm-hmm. ay ay ay lan ngeen fay indi. loo xam ni askan wi dinañ ci gis seen bopp. bon déjà ma wax rek ne man ñun bi ñuy teg contrat de législature bi dañu espérer woon am ay débat argument contre argument. Mhm. waaye man day. mais malheureusement xam nga ah, loolu. loolu ci suñu culture politique xam nga ni bariwul luñ ko fi gis. Ah, mais gisuma de wax fa dëgg yàlla bu ñu sañoon. am ko mais ñun par exemple ñun présentateurs yi dañuy am problème yooyu. dañuy am problème par exemple ni Abdourahmane. Mhm. Euh, coalition Yewwi na am ku ñëw ak yooyu. en général dañuy am problème yooyu. waaw xam nga idéal yooyu débat. idéal mooy Abdourahmane taxaw. Aar Sénégal am ku taxaw Yewwi Askan Wi wala Benno Bokk Yaakaar ñu waxtaan mhm. loolu bu mënul nekk mais mën naa ñëw tey wax man li ma yéene bu ma demee assemblée nationale suba keneen ñëw wax mais man dama gisul ko wax lu mu yéene man de soit député et tais-toi laa fi gis cest di dire que yow député ñu ne la Sénégal 17 millions 165 lañ ciy tànn 165 sur 17 millions boo leen demee yéenay taxawal askan bi. waaye wi nee nañ. bu man man man tudduma <laughs> kenn dama ni man dama ni. le minimum. le minimum. mooy nga wax sa yéene xam nga yéene sax mën nga ko def mais boo demee yéene ba bañ a mat day am. mais nga ne man bu ma demee bu <laughs> leen ma falee. ah non non mais nii laa bëgg doxalee ak nii ak nii gis-gis mais dara docteur Aliou Sow toog na fii vraiment wax na am na lu mu wax na wax na yéene bi ñu am ñoom itam am nañ seen benn contrat boo xam ni vraiment. maa ngi koy maa koy maa ngi koy nuyu sama sama xarit bu baax la. quelqu'un qui a une étoffe intellectuelle de très grande envergure. Mm-hmm. te je sais que bu demee assemblée nationale dina fa am njariñ. Mm-hmm. ah mais nag man de bii laa fi gis de xaw ma ndegam am na beneen huit lañ bii daal laa gis. mais ñun au moins am nañ yéene yéene bi mooy bu ñu demee bu ñu nekkee député nii lañ bëgg a doxal mais ñeneen ñi pourquoi waxuñu lan mooy seen yéene. léegi su ma non non foofu il faut ñu taxaw fi parce que nag gis nga affaire bi dafa bëri bruit dafa am un brouhaha coow mais député la ñuy fal mais nga yow depuis six mois yaa ngi préparé wu defar nga ay t-shirt ut nga ay camion fay nga ay millions fay nga communication mais ci biir loolu yëpp ba tey waxoo. boo demee assemblée nationale lan mooy sa yéene nan ngay taxawale sénégalais yi. Ah, man loolu daf ma yéem. mais man dama ko dégg. ñu ne lan dama dégg ñoom seen yéene. Ah. seen yéene mooy dañu bëgg am majorité. par exemple bu dee yeewi askan wi. Ah, dañu bëgg am majorité cohabitation am Macky Sall euh, bañ a dem ci troisième mandat. réew mi ñu mën a xool li nga xam ni moom mooy jafe-jafe yi am ci wàllu pétrole bi wala nu ñuy sax saxee. seen alal mais mais ñun ñëpp loolu lañ. non mais non da ngay wax seen yéene mais dama lay wax li ma dégg ci seen oh, ñu mën ko lañ bëgg. waaw c'est-à-dire tey tu prends un candidat à une élection présidentielle nga ne ko lan mooy sa yéen. mais li yow lii def nga ko tey. waaw plusieurs pages la certes mais est-ce que am na accessibilité ci askan bi est-ce que yaakaar nga ni li nga fi nga bëgg mu egg ak ñi nga bëgg ñu dégg ko nii nga ko defee. dina yomb ci ñu ngi def lu ñu mën pour mu yegg loolu beneen question la man li may wax parce que loolu nag dama ci bëgg taxaw da nga bëgg a doon député mais waxal pourquoi nga bëgg doon député. mais ñi ngi koy wax ah, mais gisuma ko man dégguma ko. gisuma fi ku fi présenté contrat de législature. non même boo ko crée bu fekkente ni. présenté wu loo contrat. mais am nga leneen loo présenté. Pape daluma ci kenn dama ni ñun aar Sénégal wax nañ ne fukki poñ ak ñeent yii bu ñu demee assemblée nationale moom lañ bëgg a doxal dama bëggoon dama yéene woon critiqué wu ma kenn de mais dama amoon yéene man bu ma ne un keneen ne deux ñu waxtaan pourquoi un bi ak deux mënul ànd mais gisuma ko maintenant benn critique bi nga ciy dégg. ñenn ñi nga xam ne defuñu ko te critique boo xam ne teguwul fenn la mooy wii wii euh, assemblée nationale boo fay dem député nga député doo dogal gouvernement mooy dogal donc ça ne sert nga def programme loolu ku leen ko wax dafa leen di nax parce que programme du gouvernement dafa am benn boo ko Yaakaar ñu ngi seen PSE tey seen PAP 2A boo xam ne amul benn co benn cohérence mm. mais loolu bokkul ak yow parce que bu doon loolu la mais pourquoi yow nga bëgg doon assemblée en sachant que assemblée amul njariñ bu assemblée amul njariñ bul nekk candidat. mais mënoo wax ne assemblée am na njariñ dina fa dem. mais soxlawul may proposer dara parce que la may proposer de toute façon gouvernement moo koy doxal c'est incohérent donc ku ñun lii ñu wax fii yéene la te ñoo ñu nga xam ne nee na ñoom dañ mën a jàng ba ñu ciy critiquer ma wax leen ne ñun dañu dund institution dañ ko xam ci théorie pratiquer ko fii dañ ci wax lu ñu wax ne député bi mën na ko def dañuy wax ne dans la prérog dans la limite des prérogatives euh, dévolues aux députés à l'Assemblée nationale am nañ lu député man ak lu mu manul waaye nag député proposition de loi treizième législature bi ñu génn nii xam nga ñaata proposition de loi moo